bërki dem président Macky Sall dem na France ñu ñuy jàppale dañu financer pour la transition énergétique dañu cee waroon na fekk parce que c'est le secteur où on a be on a le meilleur potentiel donc am nañ énergie bu doy nous sommes un pays à quatre-vingt-quinze pour cent plat xam nga les terres cultivables Sénégal ñaata lañ ci emblavé ñaata lañ ci bay mu nekk entre quarante cinq et cinquante pour cent même pas la moitié duñ ko bay tey boo demoon àll kajoor bi boo demoon àll bawol bi lépp am mbooy la lépp am mbooy la c'est la vérité du terrain alors fépp taw feex ni kon am nañ ces potentialités nous allons investir massivement ci agriculture mm-hmm. benn sur la maîtrise de l'eau dañuy def benn le le kanaal di du Kayor boobu ba nga xam ne depuis Abdou Diouf. dañ ko dalee wax yàgg na de. depuis Abdou Diouf. Hmm? on avait ce projet la hmm. études yi demewoon nañ ba sori. ñu amoon ay différents Ablaye Wade bi bi mu ñëwee bëggoon na ko def moo ak les vallées fossiles. Hmm. ñu amoon ci ay différent ak Mauritanie. Mauritanie les vallées Ablaye Wade dellu dafa def erreur. loolu woon dellu ginnaaw. non parce que OMVS ñoo xam loo xam ñun ñoo ko bokk la am réew nag da da ngay mën a gérer sa souveraineté da ngay mën a gérer ses intérêts ses intérêts population mënuñoo nu dix milliards de mètres cubes bu ndox muy tuuru ci ndox mi parce que mënuñoo waxtaan suffisamment ak Mauritanie. Mhm. te yàlla def na sax différents yooyu léegi taaserewu na vraiment relation relations sont devenues excellentes. mais parce que là lu volet fossile buñ ko tuddaatee rek mën di indiwaat ay différents. mais justement loolu le Sénégal a un poids suffisant xam nga un état nag c' un état fort du état boo xam ne police am ak gendarmerie dañoo bari ay grenades lacrymogènes. Mm. c' est un état qui sait défendre ses intérêts vis-à-vis des autres états dans sa diplomatie dans sa relation avec les pays voisins. te mm. le Sénégal nag bu dee mënul. dix milliards mètres cubes ndox yi tuuru ci géej gi mu mu mu amener à la région de la Mauritanie que ñun mën nañ ko exploiter dañ koo soxla dinañ ko exploiter c'est que l'OMVS n'a plus de sens. Mmh. c'est ça un État fort. Mmh. c'est un État qui défend ses intérêts un président fort c'est un président du ma ne qui bien sur son peuple mais qui défend bien son peuple dans les négociations internationales. Mm-hmm. Cheikh Dieng xam na ne am na boobu poigne am na boobu euh, ay arguments techniques qu'il faut au niveau de l'EMFS pour que ce canal du Caire on le en place parce que loolu bu nekk un axe stratégique important du programme Fippu Tawfekh